yàllaa te ñu yëgal ko ko ma jël ko ci téléphone mom Abdou Diouf ma ne ko bu fa yóbbu escorte mukk dem fa demu jarbat mu dem fa demu jarbat ci ngoon ma woo ko di ko mu ni man nak ma waxoon def na ko bu mon son bay sa ma nga ma tatak ni ma parce que simplicité bi lu rëy la dama dama cey top duma len baye Mamadou Diammi bi muy julli ji ci juma ma dajeeg moom mu def escorte bu rëy laa woo alaaj Ousmane Alioune Sylla bu ndar mu ñëw ma ni ko demal ni Mamadou Dia buy demati na ko def bu simple waaw bu jullit rek te bañ koo def postu chefu gouvernement bu dem wax ko ko mu ne ko chef wax na dëgg yooyu rek lay saxal ñoom ndax maag ñoom a bokk lu ne waaw lu ne lu ne waaw bu fekkee ni nag ay wayu dox nañu ci diggante bi ba nga won ma bët bu xonq ma won la bët bu xonq kooku loolu loolu moo tax ma daan saagaanteeg Senghor yàlla xam na ko parce que mag la woon tax ma may def noonu pour won nit ñi ni leen ndegam kii laa koy jëfanteel bu dee yéen du ma ta wax yàlla xam na ko ma toog benn avocat ñëw sessi ma boo xam ni mbokk la ci ñëpp waaye gisuma mu gis sama chauffeur Ousmane Cissé ñu ko waxal Cheikh ni ko dama ko doon seet pour balu ko àq dama dem biti réew di ko fa jëw nekk benn jigéen boo xam ni juive la elle est d'origine juive mi ngi toog naka laa àggal rek mu saaga ma dama dama defe noonu ñu sa xamuñu Cheikh dama àggal rek mu saaga ma traité ma de tous les te bu ma àddu woon rek mu fetal ma kon nag wax ko ni ko ndegam maa réer ci biir réew mi ba di ko jëw ci àll ñu mettre ma dégg nga en garde ni ma boo ci delloo rek loolu daf ma yee ci réew mi kon nag wax ko ni ko na ma bal àq ndax bëgguma dee mukk te balu ma àq Ousmane Cissé wax ma ko ma ni ko ne ko bal naa ko fukki yoon ndax itam rakkam li mu bokkal ndey bàyyi dafa nekk juge ci ñi jëkk nekk juge nit ku ñuul fii ci senegal la bokk fekk ma joteeg sengoor bu metti saaga leen ñoom ñëpp ñu porté plainte ñu ni ko yaay juge bi dangay ngay convoqué Cheikh mun leen lànk na lu ma ko convoqué ñemewu ko mën naa dem nag seeti ko mais du ko convoqué mu ñëw seet si ma yàlla xam na ko ni ma nag loo ma wax ma def ko ma ni ko fas naa yéene bés bu ne ma saaga Senghor est-ce que di ko ñemee yóbbu mu ni ma billaahi naa la yóbbu lenn laa lay ñaan nag ma informer ministre de la justice ndax mooy sama ministre ma ni ko entièrement d'accord mu dem dellu si ni ma ministre bi nee na loo ci bëgg nga def ko waaye bu kenn yëg ni maye na ci yoon waaw waaw rek nu tàmbali affaire ba ma ko jëkk a jox wex xat ni kan mu dem yóbbu ko waaw ba ca président teg ko ci kaw taabalu Senghor nu commencé xare ba ba mujj yàlla def ci sutura waaw Senghor ni naa ñëw sees si ko ma dem fekk faal yàgg jaañ ak dur càmm mu ne waaye nan juboo waay ma ni ko ay cee waaw ah oui parce que léegi waratuñu am intermédiaire suñu diggante intermédiaire yi dañuy yàq rek ba tey boobu baax na loolu moo fi mas di nekk moo fi mas di nekk yàlla dogal li ma ci am ci relation te boobu nii laa toll moo tax bi ma jàngee bër ki dem benn tubaab bu bind nii éloignement Cheikh Tidiane lu ko waral nee ñu dañ ko saaga woon ci Tiwaawan moo tax ma ni man ma ni ki ko bind war na xam ni li mu tuddee éloignement du dëgg ba may ba may dem ba may bi may dem Kaolack booba jaarewuma Tiwaawan booba xaw ma Tiwaawan dama jógee Kaolack directement dama jógee Ndar directement dem Kaolack fekk fa la jàpp dukan dem ci Tiwaawon wala duma dem ci ma man ko wa lolo pour la parce que rek amatu lolo bind nga top ci neger yi di fen rek di fen rek di fen top ci neger yi di fen rek di fen top ci neger yi rek di fen di fen di fen mu ni man dañ ma wax lolo man ko buñ la ko waxe nga xamni yow da nga da nga teeral man ko parce que tubaab yi ñu ngi ci seen donkaasi gi yow nga nekk fi ci biir nekk yi di fen rek mu ne baal ma àq ma ne ah ban bal ak mukk koy duma la bal ak ma ne ko man duma jóge ndar rek dem kaw la fala fekk kan, la jaab kan fala fekk sama bay bu tedd ba xalifa ñas xalifa ñas boobu moo jur Ahmed xalifa ñas bi moo jur Sidi Lamine taawam def na ci man qasida taawam def na ci man qasida farihal biladu bi maqdami tijaani te mooy mag ñoom Ahmed xalifa ci man qasida Ahmed xalifa dama ko daan jël dugal ci suma oto ñu dem tourné tournée yoo xam ne lu ne xaj na ci ku ne dafay gànnaayu wallaay ku ne dafay gànnaayu Cheikh Tidiane Niass doomu Alhaji Ibrahima ñas tey bu mu tuddee sama turandoo ànd nañu tournée boo xam ne papaam dafa wan na ni du wàññeeku mukk daf ñu mujj jox gànnaay yàlla xam na ko pour wax la ni yii li mag ñi wax rek imam da suuqi تركنا البحر الزاخرة وراء ها؟ تركنا البحار الزاخرة وراءنا فمن أين يدري الناس أين توجهنا ها؟ مدني لسن بتغو بولن دي تدو غير 14 غير 39 دي ني ديفيني دانا دوف نداي بور نيوم غير

te seen bët tegu ci seen bët tegu ci te du ci teggeeku te xeexuñu woon pour gagner dañu doon xeex pour disparaître à jamais parce que buur bi noppi na ci ñoom te buur bi lu mu noppi ci yow seppi loxoom te bu seppee loxoom nga sàkk pexe looloo tax moom la ñu tuddee xarbul majarraar imaam suuxi moo ko wax رجل البحر الزاخرات ورانا سنو بطي جيكول بلغي چي كريز بابو كون نك نكنجن مي وخي كريزو جيرو 39 كي جيرو يو كان خمول يفي سانقلين يفي سانقلين رك وا. ها على الدرة البيضاء كان اجتماعنا ومن قبل خلق الخلق والعرش قد كنا Thank you. wadde muñu muñu ma agale tuti ma agale tuti rek xamna way yi ci تركنا البحر الزاخرة ورهانا فمن أين يدري الناس وإلى توجهنا على الصخرة البيضاء لا أخر والله إمام رفاعي نيكو دفكو على الدرة البيضاء مدفكو وهي على الصخرة البيضاء نبني نرفتنا على الصخرة البيضاء توالوي رفتنا على الصخرة البيضاء رفتنا على الدرة البيضاء رفتنا آه. نخ نعم، دفيك لني آه، ما مضافات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها آه. سين بت في متقولة تقول tubaab yi weddi woon nañu loolu ni dafa agressé seen culture mais mujj nañ ci d'accord te eh? te ki leen d'accord loo ci loolu benn xale bu sawar la bu ñuy wax Jean-Jacques Rousseau waaw waaw moo leen moo moo moo moo xiddi moo xiddi eh, eh, su yëf yi yëpp waaw écarté ko purement et simplement seetal loolu moo ko xiddi tudd benn rek arabia ربيع سرمدي ربيع سرمدي ربيع سرمدي ربيع سرمدي سيتو لول سيزون ييب مو داخلين صحاب رك ربيع سيزون ييب مو داخلين صحاب رك ربيع تدي كو ربيع سرمدي لترنيل برينتان لترنيل برينتان خا مني ميغي ديكي سي ميغي ديكي سي ngi dikki si l'éternel printemps waaw écarté yi ci des yëpp saison yëpp mu écarté ko bàyyi rek garab yaa bi mu ngi lay wane ni esprit bii jar na seet jar na seet tuddee ko rek yaa sarmadi l'éternel printemps mi ngi dikki si ngi dikki si moo tax àbb naa ko bis Rabia Sarmadi tagg ci suma turandoo yàlla xam na ko maa ngi wax fa man yasluk tariqatahu yajidha rabian lil xalaayiqi sarmadiya waaw yàlla xam na ko ba tax na ci yooyu la ne waaw ci diggante yooyu lañu ñu ne waaw tabarkalla raam ci fer ci màgg ci tabarkalla sëñ kër fii El Hadj Abdou Kane fii El Hadj Seydou Nourou fii xalifa ñas fi ci diggante boobu la ñu raam tabarkalla la sama najaay ju baax ja Mouhamad Aliwul Fata Babba ah. bi ma ganee àdduna ci ñetteelu fan la ma tagg ci ci way waaw la xam na ko te moo daqoon sañse ci Sénégal yëpp gën ci dégg arab te mu nga dëkk gànnaar ci alaw yoon yi la bokk xaritu benn bakkanu Alaaji Mansour la xaritu benn bakkanu Alaaji Abdoulaye ma ma jékki-jékki rek xaw ma lu ma ci xiir ma tapaas ko te moo ma ngénte waaw ma tapaas ko rek ndax daf ma daf ma daf ma daf ma provoqué ma fayu ñu ñu continuer ko sëñ Babacar xëy ni ni na fi yem na fi yem ndax dama bañ euh, dérive am ci ndax bu ci amee rek dafay dal di nekk al muharabatu bil qalam te sa maam dafay bañ bugul al muharabatu bil qalam kon nag yemale leen ko foofu waaw man ma def ba ci mujj yónnee ko jox ko mbay fay mu yóbbul ko waxaale ko ni ko sëñ Babacar nee nañ ci mettre en terme ndax dafay bañ mu nekk al muharabatu bil qalam ndax Maodo daf ko tere waaw ndax bu bu ma wayee ci suba musiba ma way ko ca ngoon musiba waaw yónnee ko ko sëñ Babacar nag ne nañu arrêté ñu arrêté rek mu ci kayit ga ci kayit ba ni in rumta in rumta nadban shaa'iran mutawaadi'an طلق الجبين سميد عن مفضالا فعليك بشيخ التجاني آه. آه. waaw waaye fekk na mu wax ma musiba mu day naña <laughs> daal di jëfandikoo baatu woy man woy man xam nga maam dut sekk bu ndar moo xewal wéy man woy man waaw wéy man xanaa du dërëm waaw di xuloo wéy man xanaa du dërëm maam maam dut sekk wallaay wéy man xanaa du dërëm waaw مامي مجل ويمن خنا دو تجاني من الخليفة من لكنا عقيقته نلك نجي سمن جنت في سالف الزمن من كن دكوا يتي دون جنت والله ندسان خم قد جنت بابو بوتي رامي فرتي أمن لودو تليه الله خم نقول وتهمني إن رمت ندبا شاعرا متواضعا طلق الجبين سمعت عن مفضالا فعليك بشيخ التجاني إنه جمع المسائل لا يرد السؤال آنسا واو am naa ko am am naa ko tabarkal ku xeroon ci man la waaye dama xëy ca Kaolack rek allah du ñëw ni sëñ Babacar rek Cheikh Tidiane sama cër la jox ma ko mu ne ko ma ngoog ndeysaan keroog triste naa lool ndax allah jaab du kan daf ma yàqoon wallaay daal di may wutal valise préparé ma ànd ak moom ñu dem Dakar boobu laa demee Dakar ñu ni barki demb laa fa dem ndax dama mero ils man allah jab du dakar joge fa delu hati angko, xati encore tok fa tuti mu daanu febar ñu dem gengi walla mi ne Guinguinéo booba maturin jawa fa nekk ko médecin ñu dem fa moo daan faj Alaaji Abdu xaritam la walla rem la tudde na ko doom Abdu Jaw ñuy jàng alquran di ci rax yeneen ci laa jànge affaire rap yi le yi yiy def maa leen ci jiitu yàlla xam na ko parce que dafay buñ la ciy jàngal dangay ngay gaaw a xam lu am solo la hmm. façon bu ne lañ ci daan jang dem nañ ci ba indi ci légende légende jinne yi xam nga dañu wax ni jinne yi ay rappeur lañ ay rappeur lañ mais ñoom dañu dañu xirtal nit ci loo xam dafa jariñ ndax bu dee bu ñoom góor gi jibril ñi nga ñoom affaire teen la ñuy xirtal mag ñi nit tax teen yu mujj nit ñi daañu dem ba dootuñu mën jariñoo robine teen rek la ñuy mën jariñoo moo tax ñu daan xiirtal nit ñi ci teen waaw maa ubiri daari jarina ahla min maa ubiri daari ko seetal loolu boo ko defee jibril ñu ngi fii sëriñ Moustapha fii ñu di ko woy nekk ay rapport yu sotti waaye fekk na jëkk loolu maa ngi ci génn gi new àla jabdu di ma ko jàngal ba ci affaire alkiikaku ca laa ko jëkk a dégg baatu alkiikaku ma ni ko baatu lan la mu ni ma jinne yi la baatu jinne la mooy firi doolinka ma ni ko luy doolinka mu ni ma dañ koy nappe seetal loolu mu ni ma dañ koy nappe dal di indi njël benn woy wa yaa faayidan fi shibaki ma ni ko luy shibak mu ni ma mooy mbaal bokkul ak doolinka yaa faayidan fi shibaki wasaabi xam fi biraki ma ni ko albirak mu ni ma mooy état yooyu ñuy yare jën mu ni ma ndax jën yi mujj dundal nit ñi yàpp dootu leen dundal waaw bu ko defee ñuy jël ay crayon di ko finq yaa saayidan fi shibaki masaabiham fi biraki la taxqaran na kii ka fa kii ka kii ka সেটা হলো yooyu yëpp te boobu maa ngi toll ni yàlla xam na ko pour wax la ni gaañ yi itam nañu bàyyi xel lëf du dëgg waaw booba tabarkal la mbooloo amul dara amul nun rekk ci gén gi neew yàlla xam na ko ba ci al abxaal faal madi ñu tegleel la ko ni la tëgg ci ay talab talab nga jël ñaari crayon di ko finxe mel ni ci orchestre nga bokk dañ ko daan def bu ko defee ñu ni la saara waaw waqafa baa zaara yooyu yëpp aama yëpp dañ koy tegle jox la ñaari crayon nga di leen finxe ñu ne indi palab bi bu ko defee nga daal di xam ne palab bi ba boo nee saara kay sir la boo nee waqafa kay xiif la bu ko defee nga jël nag di tëggee ñaari crayon yi di wax sir xiif bi ak biin bin jour si day seetal loolu man nga yendu ba ngoon boo ko jàppee ñaari weer rek nga wax arab comme doomu arab la yàlla xam na ko pour wax la ni hmm, loolu fi xewoon waaye jinne yi ñoo wax ni nit ñi ci jën la ñuy mujj waaye ñu daldi di génne xaat ñoom mbaalak doolinkaat yaa saayidan fi shibaki wa saabihan fi biraki yataqaran na kii ka kii fa kii ka kii ka kii ka yooyu yëpp xe yëpp dañ ci daan jaar parce que booba nit tal na ko waaye léegi nit talatu ko ndax sàkku aslëf waaw yalla xam na ko ndeysaan am bés ma jóge Dakar dem seet góor gi ma taxaw waaye mu ngi mel ni bopp bi dafa am soxla mu jékki-jékki ni baa bu ma rusul woon samaam de danaa ubusle sama téere xaw ma lu ma ciy tontu ma bàyyi noonu ba bi mu feebaree ma dellu si encore mu ne ma bu ma rusul sama am de danaa ubbasle sama téere yi ma xam ne am na lu mu junj mooy bu fi jógee dootu nu jàng nuy toppatoo barke rek xam ne loolu lay junj te njàng nag ba faw lay doon njàng moom ba fàww lay doon ba tax na rek réew mi hmm, noo ko bokk bëgguñu fi lu ñaaw bëgguñu fi lu salte dafa fekk nag fi la ci loolu la nu fekk àdduna bi ndax Maodo buñ ko masanni ba àddunay baax mu ni kañ la ba ñu rey yonent yi ñu ni boobu baaxul kañ mu ni kon nag masul baax waaye kenn ku ne am nga lu baax loo bëgg tabarkalla tabarkalla bu dee Lamine Gueye bu dee Senghor bu dee Mamadou Diam mii Mamadou Diam ma tey ci loxo ba yóbbu ko ci sëñ Babacar bind na ko bind na ko ci téereem bu mujj bi te téereem bu jëkk ba daf ma ci doon saaga ndax dafa xundoon waaye bu mujj bi nag wax na ci lu rafet lu ne ba noppi bind ma lettre boo xam ne lettre bu ne rafete amul mu ni man nag dabaatal naa yi ma doon saaga yëpp ni ko baax na ci dëgg yàlla waaye allah jabdu kan nee na nee na xuloo mbuubit la ne loo loo jël rek sànni ca waaye bu juboo amee nga tànnaat rek waaw parce que loolu moo moo fi nekk ma foog ni rek ku yebu di ñaan ñaan yàlla defal leen tawfiq te ubbi leen leer ba ñu mën a juboo nit ñi itam góorlu ba tàmm liggéey ah xëy na yombul mais ñu jéem ndax jéem principe bu Maodo la boo waxee mu ne ñu jéem waaw jéem nag ëpp naa ñàkk a def tabarkalla tabarkalla tabarkalla loolu mooy li nga xam ni moo fi nekk leneen ku fi nag mu mel ni kon rekk ku mënoon dakkal coow li seet foo koy jaar te bañ a nag weddi ate yàlla te bañ a weddi bañ a weddi ate yàlla ndeysaan nit fokk mu am nattu Ablaye Wade dem na prison ba tey man mii dem naa prison ba tey kii ma laa mujj xeexal ca prison ba ah, Majmoud Majmoud waaw Majmoud dafa am ku ko manqué rek nit ku ko manqué te mënuma ko supporter parce que Majmoud nit ku yiw la ñu jàpp ko rek indi ca prison ba am ku ko gëdd rek ma génn xeex ak ko ma génn jëkk ko saaga ndey mu fayu ma xeex moom ndax yàlla ak majmuur prison bi yëpp toj ñu yabal si camion militaire yi yàlla xam na ko laaj ko ko parce que man bëgguma ku manqué kilifa baaxul mais régisseur ba fa nekkoon di tubaab ku bari maslaa la moom mujj moom calmer affaire ba ba ca ëllëg sa mu gàddu ka ma doon xeexal indi ni ko présenté ko say excuse daal di may jox loo ni ma baal ma ma ne pat mu ni ma man salaatu fatiha laay wér de ma ne ko mais yow sax salaatu fatiha bi du bu Babacar Si <laughs> waaye ñu mujj juboo pour wax la ni yooyu yëpp boo ci jaaree yii nit ñiy def dooy mel ne xale yu ndaw doo ko faaleeti sax yàlla xam na ko ba tax na loolu rek mooy li nga xam ne moo fi nekk ñu ñaanal leen yàlla yàlla leeral seen xol bu ñu mënee juboo ñuy juboo parce que li ma waxoon bés Abdoulaye Fofana ci làmmiñam mu ni ma fekk dama ni ko Abdoulaye bàyyi leen affaire idéologie la seule idéologie qui vaille c'est d'être sénégalais mu ni ma mësuma dégg lu mel noonu mukk waaw te loolu mooy dëgg kii gauche la kii libéral la kii nangam la kii nangam la il vaut mieux être sénégalais rek mu gën du tee nag idéologie yaa ngi fi mu ngi fi mu ngi fi mu ngi fi tabarkalla bu ñu rek nu seet naka lañ ciy def te dellu cosaan yi ñu ñu bàyyi ci xel ndax li ma waxoon ëmët yi tabarkal la tabarkal benn nit boo xam ni daanaka tabarkal tabarkal ci sama loxo la yaroo waaye mujj na may jaaxle ku koy jàngal ak fu muy jàng ba mujj xale yi di ko tooñ naan ko yaa doon noo yaa doon noo ndaamal Gosaas ndaamal naan ko yaa doon noo Kocc Barma Kocc ma woo ko ba mu ñëw ma ni ko te nga jàpp ci philosophie yonent bi moo gën de mu ne ko parce que ñi nga tudd ñëpp ay narrateur rek la ñuy sont pas des philosophes ça il faut le dire parce que philosophe mooy ku mën a dund ay xalaatam mais un narrateur dafay wax rek mais mënul dund ay xalaatam ma wax ko ko mu mu jiite génn tabarkal tabarkal bu ma ko waxee rek nga gis ko daanu ci sama kaw bind ma leetar saaga ma waaye ma xam ne baax na ci ay mu mel na ci loolu ku bëgg a dellu cosaan rek am loo bàyyi xel loo bàyyi xel bu cosaan ma ñagasee rek nga teg ko fa seet beneen bu rattax moo gën de loolu toujours toujours toujours moom lay waxanteeg ñoom tabarkal la tabarkalla tabarkalla yonent bi entouragem la mu ca daj kenn dootu ko daj hmm. te ñaari yëf dafa am moo di Sëriñ Babacar daf daan wax ni nee na lu baax noo ko nëbb nëbb ngir bëgg yool ba ëpp nee na di dem ca marché ba gis ñaari jigéen di ko waxtaane nee na loolu yàllaa ko war mi boo dee nëbb lu baax ngir bëgg yool ba yokk ne eh, daa dem ca marché ba dégg ñaari jigéen di ko waxante nee na boo dee def pexe mu bon te di ko nëbb ngir bañ ñu yedd la nee na boo demee ca marché ba gis ñaari jigéen ñu koy waxtaane moo tax ne lu ci ne booye ba rek xam li nga bëgg bu mënee rafetal nga rafetal loolu la daan wax ah loolu itam du fi jóg ndax dafa am nit ñoo xam ni bu leen bu leen jëmee chantage bu leen jëmee manipulation parce que du dem am na ku ñu wax André Malraux tubaab la dafa tudde benn téere euh, le chêne qu'on abat espèce de cax la cax waaw espèce de cax la dafa am ñoo xam ni dafa ne ni mën nañoo fexe musiba te te mu nëbbu eh, tubaab yi nag ni ku bëgg a gas ku bëgg a gor xay ba mu daanu te kenn du ko yëg da nax sa bopp da ngay nax sa bopp da ngay nax sa bopp benn semmiñ mënu ko moom boo bëggee gaañ nit ku baax rek booy tàmbali nit ñi di ko yëg amul sa wenante mel ni kon nag loolu mooy li nga xam ni moo ci nekk ah te institution yaa ngi fi ñu ormal ko ah, mu mel ni itam لا إمام بصري وخن جاء مدير علي بن أبي طالب أمير المؤمنين على صراط إذا عوج الموارد مستقيم دنيو ورا أنكوراج كليفي يوم بنيو نكول أن كريز رك دق دق institution yi duñu nek en crise institution du xey rek nek en crise dafay fekk conscience su nit ñi mooy nekk en crise mais bu conscience su nit ñi rek lee rek mooy bayt ba amirul muminin ala siratin ida wajjal mawaridu mustaqimi loolu mooy mooy li nekk tabarkal kon nag ñu bàyyi ci xel rek tey ñaan tey ñaan nag te xam fu nu ci yem ndax ñoom it dañu àgg foo xam ni boo ca boolee sa bopp rek gaañ sa bopp ndax ndongo daara ndongo daara rek la mënu ko passé kon nag yàlla na ci yàlla def sutura te yàlla boole nu taxaw te yàlla yombal yiw te yàlla aar leen te aar nu itam tabarkalla tabarkalla ah dafa fekk nag mu di guddi gàmm ñu bëgg rekk nàmp ci yonent bi bëgg itam rek bokk koog yéen nanu ko daan defee bu ko defee occasion la pour ñu wax ni ay délégation officielle ñëwoon nañ fi te yëg na nu ko itam jóge ci président Ablaye wat te ñi mu yónni yëpp di di ay mbokk di ay xarit yàlla xam na ko maître ma di kay ñang moo ma téléphoné woon wax ma ko ni ma ñu ngay dem ca tànt ba waaw ku baax la waaw ku baax la te man dama gëm valeur ñaar ñu war a ànd ñu ànd valeur complémentarité dama ko gëm waaw tariqa bële la nekk ma nekk ci tariqa bi mais du nu réeroo moo tax biñ ma nee ñëw na ba bég ci sama avocat itam waaw ndax sëñ Babacar moo ko waxoon ci làmmiñam ni nañuy wut léegi avocat moo gën waaw ndax dafa benn mbokk taalibe bu ñëw ni ko man di dafa am lu ma dal mu ne ko lan la mu ne ko tubaab yi dañ ma dénk xaalis mu sànku ci sama loxo te lenn rek moo ma mën a sowe mooy ma wax leen ni yow laa ko lebal barka xalifa te bu leen ko waxee dinañ la ko laaj mu ko defee nga ni leen waaw woni tekka yag ni ko dom masuma masuma fende de nga tàllal rek ma jangal la fàtte wallaay ndeysaan ma soog a talal mu jangal ko fatte mu ne ma nag nañ ko wutal avocat mo gan ndax lii mu wax lu grawul ko sa dom nga fi de ma wax ko ko André Guillabert mu ni ma waaw wax ko ko wax ko Guillabert ba léegi Guillabert nee na mosuma gis lu mel noonu mukk moom xaw ma mu ni ma góor gi dafa gëlëmal ñële xaw ma waaye man mi nekk avocat ba léegi booba amaguñu sax autonomie interne ba léegi kenn woowaguma ba ñamoon affaire ba gaañu nañu kañ ko séqaloon gaañu nañu man maa ngi toog di xaar rek boobaak léegi mat na ñeent fukki at ak juróom kenn woowu ma ni ah, xëy na fàttee ba waaye loolu dafay am tabarkalla tabarkalla hmm. mu mel ni kon nag mun na yaboo rek di ci bàyyi xel te nangoo am kilifa aayul hmm. waaw te bañ di tànnal suñu bopp waaw ah. boo tànnee tànnalee sa bopp rek da ngay daanu jël bu rëy mu mel ni kon nag daara ji ñun ñëpp ko bokk xëy na li ci Maodo waxoon mi ngi ci daara ju màggat lu nekk nga fa waaye du teen mu làqu ci seen gannaaw làqu ci seen gannaaw farate piir la tabarkalla tabarkalla Blaise Diagne fi nekkoon ñu di ko booleeg nit ñi ndax daf doon def politique gu notable français yi nanguwuñu woon mu dépassé loolu boo defee ñu di ko booleeg yenn notable yi mu di leen nattu ba di nattu dëkk ya ñu nekkoon ngalandu jël ni dafay corriger loolu loolu moo taxoon muy wax ni man sénégalais la damay def politique bu dul bu notable nangam nangam waaye moom itam ah def la mu man bàyyi ku ne da def loo man rek bàyyi loolu moom rekk moo ciy nekk tabarkalla tabarkalla ah Blaise yàlla may ko kàttan am naa sama benn najaay opposé ko opposé ko bu metti te xam nga dafa juboo di ko woon ak alaaji Abdou Kan moom Blaise jubóo di ko ak alaaji Seydou Nour te yëpp nit ñee ko def ba sëñ kër Si moom mujj woote ca meri ba ñépp dem fa mu leen dama jaaxle ndax sunu taawu kër mooy Seydou Nour suñu wëllëre kër mooy Blaise Diagne te dootuñu dootu dootuñu waxante ñëpp ngi toog Blaise Diagne ngi toog Hadj Seydou Nourou ngi toog ñëpp ngi toog mu leen jaaxle rek a tax ma woo ñëpp fii ci mairie naka la ko wax rek Blaise Diagne dal di jóg ñëw fekk Hadj Seydou Nourou fi mu toog rek mu jox ko loxo li ko Seydou Nourou bal ma àq mu jeex mu jeex tak mu des Alaaji Abdou Kan xam nga Alaaji Abdou Kan dafay wax xattini kan waaye ñu ngi mujj jubóo ji ca Paris waaw seetal loolu mu ni allah jàbdu kan daf ma wax doomu toskare bi sëñ Babacar ni ko meddu dara ci moom mu ne am ah, daf ma ko wax ci biir nit yi mu ne ma doomu toskare ko meddu dara ci moom waaye ñu mujj jubóo ñoom ñaar mu des sama najaay sama najaay moom moo dirigé woon jeunes yi ñoom ñëpp contre Blaise Diagne ba Blaise xam ni ñu ngi koy lon parce que Louga ba Saint-Louis xale yépp moom la ñu àndaloon te dafa déggoon tubaab te dafa pànk benn bés Blaise wàccu Louga woolu ko mu ñëw xale yépp topp ko ni ko won ko sa bopp won ko sa bopp bu la waxee rek won ko sa bopp mu dem muy ji Blaise ca Louga neuf heures le ko Blaise woo mu ñëw toog Blaise commencé recevoir personnalité pour impressionner ko personnalité bu dik rek mu téye ko tuuti bàyyi ko keneen dugg nee na bi ñuy laata jeex sax bëggatuma ko ndax xaw ni réew mi ni la mel personnalité yo xam dama leen daan dégg ne ñu ne ba ci midi la ñuy soog a jeex te man neuf heures laa fi mu soog a wax ak man ne ni ma jàkk xol ne sama yaram yëpp di daw mu ni ma Blaise dafa ànd lëf mu ni ma parce que nam ma xoole sama yaram yëpp di daw dafa ànd lëf ne ni ma jàkk ba mujj mu ni ma xam nga lu ma laa doy ma ni ko déedéet mu ni ma dégg naa dangaa naan sàngara sa papa baax sa yaay baax ngay naan sàngara boo naanate sàngara rek naa la dóor ba nga dee ne ma ni waay mu ne ma waay lan man ngay wax waay acci jógal dem ne ma jóge rek ndeke dee naa ne sama tànk yi di laxasoo mu ne loolu mësuma ko gis il m'a liquidé purement et simplement jaratuma ñaar dërëm ndax xale yaa ngi may nekk defee ni damay jël poste bi ma poste bi mu saagama ni ma jógal dem ne ma jóg jaar yu ma ca xale ma jaar ci kër ga ma dëkk jël sama sakkoos daw dem la ne fa lañ ma gëj a gis kenn gisatuma mooy ma keroog laa bàyyi politique keroog laa bàyyi naan sàngara mu ne amul morom dafa am lu ko yàlla may dafa am lu ko yàlla may mais alaaji Abdou Karim kenn safu ko ma wax la ko man miin naa ko booba xale bu tuuti laa muy yàq ma yàqe yàlla xam na ba tax loolu mooy li nga xam ni moo fi nekk ngeen dalal seen xel nag parce que gëm naa yàlla te sama xel du dal baaxul baaxul de baaxul te da di nekk jàmbaar yi fàkk tëdd yéen a ngi bëgg rey nit ñi dégg nga ngeen di nekk jàmbaar yi fàkk tëdd waxuñu pour ngeen di tooñ nag tooñ baaxul waaye ngeen nekk jàmbaar yi fakk tëdd mooy ngeen garder seen pas-pas ngeen garder seen pas-pas man mi leen koy wax xam naa ci dara xam naa ci dara dara mësul rëy ci sama bët tabarkalla la ba tax na rek loolu ngeen bàyyi ci xel te itam rek fu ngeen gis fu ngeen gis yiw ngeen bokk ca fu ngeen gis yiw ngeen bokk ca fu ngeen gis yiw ngeen bokk ca ndax itam yonent bi dafa wax ni iyaakum wa umur yen yi nga xamni yene sama xet bu len dugg ci lu ñak fayda cheikh jël ko cheikh jël ko appliquer ko ci tariqa bi wa umur mom dem na ci ba ni boy boy bale mbedd te te duñ la fay salaire exiger pour ñu fay la salaire cheikh ko parce que nee balem mu set ken amul lu ko kon nag buñ la ci fayul salaire rek bakkaar nga te loolu dafa jagoo tariqa bi dafa jagoo tariqa bi yàlla xam na ko ndax tariqa bu ne ak la mu jagool boo demee ci yeneen tariqa yi daañu la wax li ñu jagoo man dem naa ci dëkk boo xam ni jël naa fa contact ak juróom-ñaar fukki tariqa juróom-ñaar fukki tariqa nga fa te tariqa cheikh bokk ci ndax nañu tariqa cheikh du tariqa seetal loolu pour wax la ni boo yàggee dox lu ne daa ko gis waaw te foofa la Seyid Xaafar dëkk seet si ma seet si ma ci hôtel ba ma dal ni ma euh, wéetaay rek tax ma seet si wéetaay rek te mu ci koo xam ni moo wutu Cheikh ci jamono ni ma wéetaay rek tax ma seet si la ma ni ko am na ñoo xam ne mbooloo du leen wéttali pas-pas rek leen di wéttali ndeysaan ñu waxtaan waaye ku amul moroom la ma ni ko toxul dem ci dëkk ba li nga xam ni lim nañ fa juróom euh, li manqué ña nga fa may werd li leen manqué million bariwul mu ne bu ma fa demee dañ may fal buur moo tax ma fa dañ may fal buur dootuma def dara tëdd rek dootuma def dara te man fu ma nekk te defuma jihaad moo ko nangu seetal loolu tabarkal la nit ku amul moroom la pour wax la rek ni yëf yi tabarkal la dafa am fu mu féete ñu jàpp ci rek te dëgëral pas-pas yi te wàññeendi ko wax wàññeendi ko wax wax du du benn problème wàññeendi ko wax te itam ku ci dëkk ak ay responsable nga jàppale leen te di leen jubale loolu mooy li nga xam ni mooy ci rafet tabarkalla Idrissa ñëw na fi yónnee na fi délégation xëy na moom daanaka rek nun amul solo noo leen jur waaw du noo am arrière pensée ci yéen mënul nekk te ci daara ji ngeen bokk ci daara ji ngeen bokk waaye kilifa ngeen ci réew mi bu ko defee rek nu di leen ñaanal yàlla di ñaanal président Ablaye Wade <coughs> di ko ñaanal yàlla parce que dañu yàgg maag moom ñu ngi fas wéleer fin 1960 kooku yàgg na ko yàgg na mais papaam nag la xaritooloon papaam papaam la xaritooloon sama soxnaa ngi may wax ni ma waaw photo yam bi naka lañ koy def la def ni woon naa ko wutal photo yu rotin photo nooy yi baaxul ci moom dafa am sedd te papam pour wax la ni papaam su ma wëllëre la ku amul morom la nee na ma xale yépp dañ ma daan yabal lu ñu ragal ma def ko ba ci Maodo ñu ni Maodo du nelaw ñu ni Maodo du nelaw ñu ni mukk du nelaw ma ni mën naa koo ko laaj góor gi dem laaj ko Maodo ñu ko nee ñu doon nelaw mu ni ko doom mës nga gis nit ku dul nelawa waaye duma ko sàkku nag seetal duma ko sàkku ci kenn mësul dégg loolu ah duma ko sàkku ji kenn kenn kenn kenn kenn mësul gis loolu seetal loolu duma ko sàkku jàngoro la ci ñoom daf leen di dal ni muy dale médecin yeeg sage-femme yeeg infirmier yeeg jàngoro la ndax duñu duñu sàkku nelaw duñu sàkku nelaw mukk daf leen di bette rek ñu mos ci génn ci waaw bu dee ci wàllu Maodo somnolence mystique lay doon bu dee ci wàllu médecin yi somnolence pathologique lay doon mais jàngoro la waaw ah, mooy ñi nelaw ci kaw chaise san ndeysaan eh, mi ngi tollook rek nu nu di leen yaakaar ngeen di yaakaar kilifa gu baax bi yaakaar sëñ Babacar Si ndax noo mooy sunu sëriñ tabarkalla tabarkalla yàlla ko defal di ko yaakaar rek te di di ñaan rek nag te wattandiku li xew ci jamono waaw li xew ci jamono ndax la borom way wa wax wa man yajali dirhama li saydi bazahu tasayadahu dirhamu fi ma tasayada ba bëggee jàpp lëg na ko rëbbe picc yi suñu mbokk arab yi di amee di ko rëbba lëg wala beneen njanaaw bu ñu añee waaye bul fekk gaynde ga ni ko kay rëbbali ma lu ma añee daan la booleeg la nga doon wut fab añee la benn yoon wa man yajal li saydi bazahu tasayadahu dirhamu fi ma tasayada wallaay ndeysaan yooyu nu di ko wattandi ci wàllu kilifa yi di ko wattandiku ci wàllu kilifa yi tabarkal waaye li nuy ñaan daal mooy dal am ci réew mi yal na nu ko yàlla defal waaye fokkit nu dox ko ndax ñàkk dox bi baaxul de sama mbokk séréer ba dafa war a bëre championnat waaj ko fukki weer ba wóonu bopp ba ngemb jëm ca làmb ja benn sëriñ dogale ko jox ko téere ni ko boo ko defee sa ngëm bi di nga daan mu jaaxle lool bëggul ñàkke teggin bëggul ñàkke teggin sëriñ bi teyit waaj na ko juróom ñetti weer te bu demee daan ñu ni téere bee tax mu daan mu dof complètement waaye kenn yaru ko ci jànn kilifa mu téye rek téere ba def ci ngembam mu dem nag daan nekke bu daanul woon sëriñ bi dafay daw dafay daw bu daanul woon dafay daw du ko gis waaye naka la daan rek mu dogale ko ni ko ay ca indi mu ni ko sëriñ ni ko sa téere bi baax na lool mu ni koy waay yow yaa gore waay ni ko déet sa téere bi kay baax na waaye gis nga waa ji ma ko kotul woon mu daan ma mu ni ko luy loolu mu ni ko déet ma xam li ma wax waa ji bu ma ko kotul woon rek mu daan te dafa bari doole te mën bëri loolu mooy téere bi sama effort bi moom rek a dox waaye téere bi moom rek te loolu dafa am te nu wéyee itam rek liggéey ak organiser sunu bopp ndax muñ jeex na muñ amatul muñ jeex la dafa muñ dee na beneen façon moo am waaw muñ moom beneen façon moo am mooy ñàkk jot ñàkk jot rek moo fi des waaye du leneen te góor gi dafa waxoon ni doom di ngeen dem ba nit fekk leen ci seen biir kër gor dana toog ci biir këram nit fekk ko fa mbéj ko ba noppi génn ca mbedd mi di yuux ni moom a mbéj mu ni dana dikk de ma ni ko loolu kenn sañu ko mu ni ma baax na dana dikk de waaye ma dégg ci xale yi ñu ni loolu dikk na ba noppi waaye dafa am benn waay boo xam ni dafa dem dugg ci biir kër jàmbur guddi defe ni kenn nekku fa dugg ci biir lëmm lëmm lëmm gisoo kenn mu daldi tànn yamu soxla yépp dindi darab ba ëmb ko ci ci guddi gi kat bi muy génn nag ci couloir bi gisatul yet woon fàtte ko wallaay ndeysaan mu laajte waa ana ku ko jël kenn wuyuwul mu dellu ci biir daldi teg ci suuf ëmb ba dindi yépp lu ci ne mu tegaat ko ca place dal ñëw gisul yet wi mu ne ah fii de la nit jubadee jël yetu jàmbur rekk yu di la wax nga ne pëtt pëttaar waaye kenn wuyoo ko rek mu jékki-jékki ni ba xër ñett borom kër ga njeytaloog yetu fekk rëcc na bu yàgg mu tëb buntu kër ga taxawi fële di ko xool ba mujj mu joxoñ borom kër gi ni ko yaa jubati ah! xanaa loolu fa la tooñ yem kenn mësul dégg loolu kenn mësu ko dégg ba tax na fa la nu toll waaye ku nekk ci bàyyi xelam ci boppam rek loolu moo gën ah te it baax na yooyu yu ci bari ci góor gi laa ko déggee sëñ Babacar Si moo ko daan nettali walaay ndeysaan ndax yooyu yëpp xikma rek la yàlla xam na ko ndeysaan ndeysaan nee ñu ndeysaan euh, benn xam nga ibnul mukafa moo bind liib léeb ca Inde jox ko tubaab yi jox ko arab yi moom iraan la ku amul moroom la waaye def ci am benn boo xam ni dañu nettali ni golo dafa wax ne jaay ji ni ko man jabar bu dégg tubaab rek la bëgg léegi mu ni ko meyow nitu àll nga mësuloo dem ci teeru mu ni ko lool du ci dara ndax suma gàntal mukk sa service benn rek mosuma la laaj alal mosuma gàntal sa service nag ma may rek jabar bu jàngee ko mu ne ko ah, man de sama doom bu jigéen la am te jàngul mu ne ko wutal ma bu jàng góor ga am jom wax ni sama jarbaat bi lu ne defal na ma ko kon nag bu bëggee jabar bu jàng tubaab rek mu wutal ko dem di ko dox di ko dox di ko dox ba yàlla yombal ko ñu may ko ci kéemaan nag ci kéemaan ndaw si ñu convaincre ko ba mu nangu yóbbu ko mu sëyi ci àll ba mu gis nag ni jëkkër ji dunde mu ni ko yow façon bii rek ngay dunde mu ni ko waaw mu ni ko mel nit dafay dund dund dëgg-dëgg jugal mu jóg ànd ak moom ñu dem doxantu ji te mësul doxantu mukk ñu dem ca marché bu ndaw ba dem ca boutique bu ndaw ba doxantu dem ci àll bi ba ñu ñibbisee goloon ni ko ah affaire bi baax na de ndax sama yaram yépp ngi nàyyi fi ma ne mu ne ko waaw kay dund noonu lañ koy defe bu ci ëllëg sa ñu defaat ko ci gannaaw ëllëg sa ñu defaat ko jabar ji ni ko najaay mu ne amu ni ko dafa am lu ma constaté mu ne ko luy loolu luy constaté mu ne ko mooy dafa am lu ma ko lan la mu ne ko da nga ragal xaj rek aduna di tukki mu ne ko man sakk nga góor gu ma ragal mu ne ko bal maax mu ne ko déedéet yow da ngay fonto man ngay wax loolu mu ko bal ko naa ko dootuma ko wax dafa fekk ragal moom dañ koy sekki léegi na dégg nekk tax ma wax la ko ni ko loolu wax ko ñi ragal man ragaluma ñu bàyyi muy xul rek mu ne ko baal ma baal ma muy xul rek ba ñu dem ci kër ga waxanteetuñu reer ba sax ku ne dañ ci teg sa loxo rek génn ci ñu tëdd ba wetu trois heures du matin jëkkër ji jóg tapp tappal jabar ji ni ko dangay ngay nelaw mu ni ko waay bu ma yeewaay man rus naa torop te dama fatigué mu ni ko déedéet man waxuma lu aay dama dégg rek nga ne ragal dañ koy sekki ni dégg te xam-xam moom lu ko yokk moo moo gën lu ko wàññi mu dal di jóg toog nag ni ko yaa ngi bëgg a rey nit ñi man li ma la wax aayul dama am sama ñaari mbokk man nañ la faj baragal bi deñ te man duma la laaj dépense sama tante ak sama bàjjen jox nañ ma lu ma soxla te sama cousin bi mu ne ko luy cousin mu ne ko mooy sa doomu tante mbaa sa doomu najaay mu ne ko moniteur d' éducation physique la top to sa yaram ki ci des psychanalyste la toppatoo sa xel man ma toppatoo sa régime amna khalis? xaalis mu toog ba mujj mu ko am luma xam de jabar ji ko lan la mu ni ko ñinga sank de ma ci mujj jabar ji mer wax lu ne ni ko nag fokk nak nga def ko yaangi bëgg reyni ni ba mu d'accord fukki wër diko top to. ba jabar ji bett ko muy seetu gis ni daal affaire bi marché ni ko nag xanaa doy na mu ne ko a ah, doyagul parce que xamaguñu foo toll mu ne ko nañ koy xame mu ne ko da yónni sa nijaay mu dëkkal la xaj ngeen bëree championnat bi ñu ko ah, waxoon naa la nit ñi nga sànq de ma ci mujj waaye maa koy soog a gëm nag man lu jotee xaj ba di ko dëkk foo ko teg waaye yow doonu fonto man sama ñaari cousin yi sonn nañu man sonn na régime bu ne defal na la nga ni doo ko def danga koy def ah man de duma yëgoon du dugg ci sëy bi mu ne ko yaa ko sàkku ñu moo taxit maa koy rëccu ñu xuloo fa waaye mujj rek nijaay ji ni wax na dëgg dem waxal ko ko xaj xaj ni ko man kontaan naa ci ndax moom sama mbokk la te bëre moom fola rek kon nag ba dimanche ndeysaan jabar ji waajal ko woo tëggkatu sama abbu siri